mbokk mi àdduna dafa lool daanaka jeex na bu desee dara itam lu néew a néew la li muy néew néew li nuy dund nekk ci biiram gën koo néewati ndund soosi itam li muy néew néew li ci man dara nekkati ci biiram gën koo néewati ngir ak tëli la ñuy jëkki ku fi yàgg tuuti itam moom ngay mujjee as diggante rek moo ci nekk soo xam ne ci la ñuy man li ñuy man lépp man soosi itam li muy néew néew moom it day jaxasoo ay gàllankoor ak xeeti tawat ak ittey àddina te li muy néew néew ci la ñuy mën a fàggoo lu nu yóbbuloo ci àllaxira gënu jëm moo tax ku ci toll war koo góor góor lu ci bu baax ngir dunduk àllaxira yemul fenn te dëgmal nañ ko ba mel ne noo nga ci biir